capitaine Dieye day wax dëgg yàlla lan rek laa ci mën a wax man de li muy wax lépp comprendre ma ci dara. <laughs> yàlla xam na ni déglu naa émission bi du début à la fin. Ah. xanaa ngeen faram fàcceel ma li muy wax. parce vraiment man li capitaine Dieye di wax man comprendre ma ko damaa euh, yeggul ci niveau comme moo tax comprendre ma ko nag solution amul au sommet de euh, xamante ne lii mooy seen programme ah, amoo leen programme mais comme maag moom a un projet qui est <laughs> mm-hmm. xam nga man comprendre ma li muy wax kon man li ma comprendre moom comprendre ko parce que j'ai lu le livre solution wax dëgg yàlla bu ma gëmul woon ni moom mooy solution wu Sénégal du ma nekk ci parti bi ba di ci sonn ni ma ci sonnee livre bi dama ko liir def ko sama livre de chevet mu wóor ma ni solution yi ci Ousmane wax te muy gis-gisu Pastef te ñuy ciy adossé ñun chaque année chaque fois bu ñu amee élection ñu ciy adossé pour bind euh, programme parce que programme dañ koy réactualiser man damaa jàpp ne loolu mooy solution bi nga xam ne moo mën a génnee Sénégal ci ay problème am Ousmane dafa njëkk a def diagnostic gu société bi def diagnostic système bi expliquer lan mooy système bi ba pare ba pare nag taxaw ne nag moom lii la gis ne moom moo war a génnee Sénégal ci guute gi mu ne. loolu nag wax dëgg yàlla ku ko mënul a comprendre maak yow bokkuñu longueur d'onde. capitaine Dièye. j'avoue que hier bi ma koy déglu. man dama defoon ni peut-être ku jógee planète Mars moom moo wàcc di wax. mais bi muy wax immaturité Ousmane Sonko dégg nga ko il pense que Ousmane Sonko wax sax dama doon obligé di ubbi dictionnaire naan est-ce lan mooy immaturité. je te jure lan mooy immaturité est-ce que man comprendre naa li waa ji di wax. xam nga wax dëgg yàlla lu ne fàng kenn du ko jeex. Mm. Ousmane Sonko tey jii nii ñëpp d'accord nañu ne du ndaw ñi rek ñoo ko topp c'est l'espoir de tout un mag ñi fi mu nekk nii ñoo ci ëpp ci biir parti bi yéen ñëpp dégg ngeen magi Pastef bi nga xam ne fi mu nekk nii ñu ngi koy structurer dans chaque département et dans chaque commune du Sénégal. Mm. mag ñi fi mu nekk nii ñoo nekk ci kanamu xeex bi. kon boog jàpp naa ni kuy taxaw di wax naan immaturité nit kooku da ngaa comprendre lan mooy